Euh, mbokku euh, jàngu bi mbokku sénégalais yëpp euh, xew-xew bi am ñëpp yëg ko mooy li nga xam ne jàngoro boobu ñuy wooye coronavirus dafa dugg ci réew mi dugg ci réew mi dugg Touba ba nga xam ne ñëpp war nañ taxaw léegi nag jàkkaarloog moom état bi nag jël ci ay matuwaay yu mot sëkk Euh, tere lépp li nga xam ne mooy dajalo bi euh, junj nit ñi ne ñu moytu joxante loxo ak nekk ci dajaloo gu bëri gi ndax loolu yëpp day yombal euh, jàngoro bi di dem ak dikk jàngoro bi nag garaaw na garaaw boo xam ne laaj na sénégalais yi ak mbokk yëpp tegtal yi nga xam ne nguur gi moom la ñuy tegtal te nga xam ne tegtal yi li ko sabab mooy techniciens yi docteurs yi nga xam ne ñooy faj nit ñi ak xam ni jàngoro di lawe cim réew ñoo koy tegtal gouvernement bi gouvernement bi am ci mat gu mat ba balaa moo def lépp dina ko jël en compte doog a kon nag suñu tegtalee nañ ko jëfee suñ ko jëfee rek am nañ jot ne doomu jàngoro bi dinañ ko teel a daan yi ci Sénégal ñuy rafetlu nag li nga xam ne kilifa diine yi kilifa aada yi euh, ku jë politique gi ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk société civile ànd nañ doon benn say ci réew mi ci wax jooju nga xam ne stratégie yi def yëpp ñoo ko bokk di ko defandoo ko defee nag li des fi mu toll nii mooy sénégalais yi ku ci nekk fa nga nekk nga topp tegtal bi moytu dajaloo bi moytu joxante loxo di raxas loxo bi ak saabu saa yi ñetti waxtu yi nekk lu mu yéex yéex nga raxasu benn yoon ba ñaari yoon dina ko yombal li ci des mooy li nga xam ne rek mooy euh, ñu ñu ñu fexe ba nga xam ne dem beeg dikk bi ñu wàññi ko ndax doomu jàngoro bi moom du doxal boppam doomu aadama yi ñoo ko yóbbu gannaaw doomu aadama yi ñoo ko yóbbu nag suñu wàññee dem beeg dikk bi rek doomu jàngoro bi ci boppam demam ak dikkam dina gën a néew su ko defee ñu góor góorgóorlu ci di dolli di sant di gërëm ñëpp tey ñaan yàlla sàmm Sénégal wasalaam. Ah, gis nañ ni ndogal bi président bi jël. kuje politique bi yëpp ñëpp ànd nañ ci ku ne génne na communiqué pour rafetlu ko ban jàngat nga def ci loolu. ah waaw loolu mooy Sénégal li nga xam ne ku kuje politique bi ku nekk jël nga kàddu rafetlu ko loolu mooy Sénégal Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar suñu demee tey ba mu demee nii Sénégal rek soxla ñëpp jël lépp ku nekk jox ko Sénégal mérito ko donc mënuñ lu dul rafetlu taxawaay bi nga xam ne acteurs yëpp. yaa xam ne ëpp ku jëg politique bi la yaa xam ñu nekk ci société civile la yaa xam ñu nekk ci ay kilifa diine ñëpp ànd ànd ak nguur gi jàppale njiitu réew mi ci liggéey bi mu nekk loolu mënuñ lu dul di ko rafetlu mënuñ di ko encouragé euh, tey ñaan yàlla nag ñëpp topp recommandation yi te ñu daan li nga xam ne mooy jàngoro ju bon boobu lay di leen gërëm di leen sant. am na ñaari secteurs yoo xam ne xam nga leen bu baax. waaw euh, aéroport nga xam ne nekkoon na fa kilifa. Mhm. ak tey euh, promotion touristique ñaari secteurs yoo xam ne mën nañu wax ni ñooy gën a impacté ci ci ci mesures président jël ñoom ñaari secteurs yooyu lay gën a impacté. Mhm. Euh, est-ce que tey mën nañ jàpp ni par exemple yenn secteur touristique yi président mën na leen jàppale ci yenn kii comme niñ ko waxee yenn acteurs yi waxee. waaw xam nga dafa fekk li am solo mooy. su amee situation boo xam ne li mu laaj moom la laaj faw ñu def loolu gannaaw jàngoro bi moom ni ma ko waxee sànq ci dem beeg dikk bi ci lay dunde dem ak dikk nag roppalaan yi ñoo ko jiite te ku wax tourisme nag wax dem ak dikk donc mun nañ xalaat ne wax dëgg yàlla du doon li gën ci secteur économique yëpp waaye mu ràññee nañ ko ci particulièrement bi nga xam ne mooy tourisme nga xam ne base bi mooy nit ñi di mun di dem ak dikk waaye nag lii teew tey waxu wér-gu-yaram la ak waxu bakkanu doomu aadama su ko defee dañuy bàyyi lépp jublu ci ni ñuy defee ba nit ñi xam ku ci nekk lan mooy sa taxawaay ak naka nga war a taxawee ba néewal li nga xam ne mooy lawu jàngoro ju bon ji su ko defee mesures yi nga xam ne état bi jël na ko dañ koy rafetlu parce que mooy mesures yi ñu war a jël te gis nañ ne ba mu ko jëlee ba tey yeneen i réew tamit topp nañ yoon woowa donc defuñ lu dul encouragé ko day fàttali nit ñi ne li ëpp solo ku nekk fa nga nekk taskatu xabaar yi ñi nga xam ne ñoo yor hôtel yi ñi nga xam ne ñooy jaay agence ñi nga xam ne ñoo ne ci mbedd mi jaaykatu légumes yi ku ci nekk war nga bàyyee sa xel li nga xam ne mooy jàngoro bile su ko defee raxas loxo daf ciy baax jël formule hydroalcoolique bi di ko raxasoo ñetti waxtu yu nekk wala waxtu bu nekk nga raxasu ci ba ñaar ba ñetti yoon loolu yëpp dina yombal mbir mi te moytu jaxasoo bi moytu dajaloo mbooloo mi ngenteeg ciit yi ñu wàññi ko suñ ko munta bat ci dajaloo bi ñu def li nga xam ne mooy farata rek waaye li ci des mun nañ ko bàyyi ndax loolu ci dajaloo boobu la doomu jàngoro bi di law loolu nag war nañ fexe def suñu kemtalaayu kattan ba wàññi ko parce que foofu rek ci yoon woowu rek lañ mën a jaar ba wàññi li nga xam ne mooy euh, ni muy wàllaatee euh, xeetu wàllaate bu gaaw bi mu doon. sa sa kër bi nga jiite. waaw kii yi kii bu ñu xaar ndimbal bu ñu waaw dégguma li nga bu wax foofu lan mooy laaj bi. am na ñu def ay sorties ci médias yi par exemple ay ñoom euh, MSN par exemple ñu ne état bi war na leen dimbale ci koppar. waaw dama ne dama ne tey jii dañ ne ay téeméer ak ay junni junni nit ñoo dee Italie ñoom ñoo ñàkk seen bakkan Italie loolu la ñuy wax de tey loolu la ñuy wax junni junni nit ñi ñàkk seen bakkan itali ak France ñun ñu am ci ñaar fukk. ak juróom-ñaar yoo xam ne am nañ jàngoro bi ba ñu faj ci ñaar nan la ñuy def ba bom bu bon boobu du yegg Sénégal loolu mooy farata ji tey jii loolu mooy farata ji ëllëg nag wax dëgg yàlla euh, lépp lu jëm ci wàllu koom état yàgg na roof loxo ñi nga xam ne ñooy secteur yi y compris secteur du tourisme sur des mesures fiscales et autres yàgg na ko def te état du ci jóge tey waaye li nga xam ne nag mooy yitte tey wax dëgg yàlla mooy ni ñuy def ba aar Sénégal ci song boobu nga xam ne doomu jàngoro bu bon boobu def musiba bi mu def ci àddina bi ñëpp dégg ko nga xam ne dugg na Sénégal ni ñuy fexe ba loolu mu def feneen réew ko def fii loolu mooy yite wi na ñëpp acteur secteur privé du tourisme ñoom seen bopp ci loolu lañ ne guddi yi fexe ni ñuy wàññee loolu euh, acteurs yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal dans tous les secteurs ci loolu lañ nekk loolu sax moo waral li nga xam ne kuje politique bi ak yeneen acteurs yëpp ànd nañu ak l'état du Sénégal ci li muy def tey loolu nag waruñ ci am benn tànku.